dafa mel ni que léegi réseau bu garaaw moo am ci dëkk bi jigéen ak jigéen di nobante di bëggante loolu lan nga ñuy ci mën a wax àdduna mooy tukki wala Sénégal mooy waaj a barastiku jaaxal nañu. waaw dafa mel ne kon jigéen moo mujj. Hmm. waaye góor a ko njëkkee. góor a ko njëkkee waaw. waaw dëkk bu ñu naan sadoun hmm. jamono yontu yàlla lóot mm-hmm. muy juróom-ñaari village mm-hmm. la amoon mm-hmm. tey jii mooy Jordanie Jordanie waaw yàlla bu demee ba yabal prophète uniquement pour loolu te li ko waral lépp nag loo gis lu bon lu nekk am na ku ko lu ko ko sooke waaye am na complice xam nga jabar yonent loot jabaram moo nekkoon complice ba te ko baax la nag waaye dem na ba mu ñu ger ko ci ay intérêt mu leen héberger leen ñu koy def mais yàlla ba yàlla ba mais ba yàlla ba yàlla sanctionné moom ndaw sa dafa dañ ko sanctionné kon loolu kon donc ñaar bu dee ci wàll muy dox di dox ba mujj yàlla de yàlla ne loo demal nga wax tak say nit ci seen langue xam nga loot hébreu la hébreu ibrahima hébreu la mais yonent bi arab la te yàlla na bu yónni nit da ko yónni ci seen langue. hébreu yi dafa mel ni ñu ci bëri ñooy nekk Israël. israélien israélien. mooy am loolu yonent bi xam moo tax bu ni Ibrahima Ibrahima hébreu la du arab mais doomam mooy arab mooy Ismaïla. mooy Ismaïla. Ismaïla njëkk làkk bi mu njëkk a tudd tudd bi ko yàlla na yaa Ismaïla lu mu ko tontu la béykat wuy naa la. Mhm. moom wuy naa la moo jiitu. Mhm. donc loolu ba bi amee yàlla def nag ñuy boobu ñooñu di parce que loo gis rek. Mhm. plaisir la. plaisir la ah, ah, ruuxa jasadiya nga xam ne seytaan day dugg ci deret yi hmm. def benn amour xool ni góor ak jigéen mel ni ko yàlla defe na mu amee solo hmm. mais bu demee ba araamal boppam jigéen attaque góor mais am na lu ko waral hmm. mais loolu ñu ngi lu waat la tudd góor a góor lu waat la tudd lu waat maanaam lu waat mooy ñaari góor yu xam amee ay problème am amour am problème mu amour si ñaari sax du ñu sëy dafa am ñaari yoo xam sëy dana am am boo xam sëy amul rek te fóonante defante yenn ko quoi. boo boo dee problème mu amour maanaam lan maanaam problème mu sentir jigéen dem bay sentir góor. waaw mooy feeling ci ñoom. feeling ci ñoom mais arab mi ngi ko tax luwaat. luwaat loolu lu koy indi lu koy sabab. parce que iblis la. iblis waaw. xam nga nekkul tayeef. déedéet iblis la góor bu dem ba nga xamante ni man man dootuma sentir jigéen man góor rek la ay sentir pour sëyal. am na koo xam ne day bàyyi jabaram. waaw dëgg la dem ci ñiy taxawalu dëgg la. peut-être du plaisir. Hmm. mais Iblis ko koy pousse pour yàq ay points. kon Iblis bëri na doole de. ah moo moo moo gën a raw moo gën a raw suñu deret yaa da ko muñal suñu deret. d'accord mais am na lu koy dindi nag. Hmm. ah Iblis am na lu koy dàq ba mu daw ci moom. muy lan ay baat la Iblis dafa am tur. Iblis dafa am tur. a'uuzu billahi min shaytaani rajim xam nga moo siiw. mooy hmm. a'uuzu billahi min kaydi seytaani rajim. min kaydi. kaydi seytaani rajim. a'uuzu billahi min musibatu seytaani rajim. aouzu billahi min makri seytaani rajim mhm. aouzu billahi min faqri seytaani rajim mhm. laa xawla wala quwwata illa billahi alazim mi ngi mel ne nga jël sondeel mhm. teg ci teg ci eh, sondeel buy tàkk nga teg ci caas lu muy def ruy lii la bañ secret secret laa leen may yéen ñëpp ndax adduna ba adduna ak. dikkaat nga xamante ni dina la musal ci seytaane. ñu enregistré ko. parce que seytaane doole loolu fii ci biir réew mi. waaw bu ñu waxtaanee ci loolu pare soo ko dugg nag ci débat yi am yëpp. Mm, waxaatal secret boobu nit ñi fàttali ko waat. auzu billahi min sheytaan rajim. Mm-hmm. maa ngi musalu ci seytaane bi nga xam ne bi yàlla da ko meroon ndax action bu mu defoon ba yàlla na ko nag li ma lay fay mën a ko jaam yi. mën mm-hmm. a ko xanaa ko saggan mm-hmm. ndax dama laa rëbb. mooy rajim. auzu billahi min makri seytaani rajim أعوذ بالله من فقر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من كيد الشيطان الرجيم أعوذ بالله من مصيبة الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله ñi xam ne bi yéen may seetaan lii musal sa doom ju góor ak sa doom ju jigéen ba di def loolu xunut bi ngeen di jàng fajar parce que boo jàngee fajar saar suur julli fajar boo jàngee falqa ak naasi xam nga am na ñaan gu ngeen di ñaan. Mm-hmm. ñaan googu ay secret la ñaan googu ngeen di ñaan muy xunuut. Mm-hmm. su ngeen ko ñaanee def ko ci ndox. fekk seen doom bu jigéen mi ngi tëdd ngeen sotti ko ca ca awraam awraam mooy sexe bi. waaw si sexe bu góor bu jigéen. Mm-hmm. du mooy yàlla. kenn du ko nga eh, xati tëdd ci moom yi du am mukk mag ñi dañ daan ñàkk seen alal. mag ñi dañ daan ñàkk seen tool. daan ñàkk seen doom daan ñàkk seen dëkk ak seen i kër. lii yëpp amatul. yii bu amee mooy parce que sàggat gi am la. ñàkk ñàkk maanaam protégé mooy sécurisé ko. sécurisé ko fa mhm. kullu mawludun yuuladu alal fitrati. fa mhm. kullu mawludun yuuladu alal fitrati nekk doom bu ndaxasi nekk doom innocent la fitrati arab mooy innocent ku xamul dara. Mhm. mais la tax mu baax mbaa mu bon sa ndek sa baay la. islam ne fa kullu mawludun yuuladu alal fitrati. doom bu nekk innocent la tax mu baax doom lenn bu màggee lenn lay xam mooy weenu yaayam cus. jeex na papaam sax du xam. mais su demee ba commencé nekk bu ko baax. nga def ko musulman. ou nga def ko chrétien. wala nga def ko juif wala maajus. kon yonent bi kon ta daar ko am naa ko. doom kenn du ko abandonné. léegi abandonnement bii nag moo war a lii di xew. lii oustaz jigéen ak jigéen dem di sëy lan mooy àtte bi. jigéen ak jigéen ñu sëy mais war a cause laaj lu tax ñu tax ñu sëy mais loolu du tayeef. Eh, du ko ko mel. mooy li ñu naan vice tamit vice. ak xew-xew ak dafa xew ak itamit lieu bi ngay nekk damay liggéey si entreprise bi lii moo fi xew lépp te diw mooy nekk kilifa gi su ma bëggee dem damay def ni muy lépp lépp roy baax roy roy dàq la mm-hmm. gis nga gis kuy xëcc ba dëkk tàmba ba mu mu ñu law ca mm-hmm. am na ko xam ne fekk man du mën a wax ak jigéen mm-hmm. am na ko mën a wax jigéen mbaa ma jox moom am na ko xam bu rey nit mbaa mu jam nit mbaa mu sàcc nit dafa fekk dafa tàggu sagom mu ne ina mm. tat xino mm. wal musrikaatu xaasi mi ne musrikaat yi mm. mu ne moytu leen di am lu ngeen jël pour drogué wu parce que complexe koy def mu ne ñii day màndi loo nit mu ne lépp luy tàggu sagono boo koy doon boo tax boo nekkoon nit doo ko def mu ne màndi la léegi nag li tax ñoom ñu koy def mooy parce que am na ñoo xam ne bii ay partenaire lañ ci am Europe dans le monde entier utale ñoo xam ne dañ koy def ñoom sax bëgguñu ko mais ñu fay ko ñu gis ñaar ñu koy def ndax lan ña leen di wala ña leen di ñii lañ ko mën a am fekkate yow yaa nga def mais complexe nga te ñu ëpp ñu koy def moo moo ñu xoolee seen bàyyi ñu nga ci jàkk jee noddu ñoo ëpp ñuy góor jigéen waaw wala seen bàyyi attends ji ma wax la mais ñaari baat mën nga ko dégg sa bàyyi baax taxul nga baax mais ku baax jur la taxul nga baax dëgg la dëkk fu te taxul nga baax dëgg da ngay jéem a baax yàlla dooleel la Sénégal nag boo ne diw ka diw yi maam ñu ne baax fekk yaa gën a bon ana abou lahabin ku ko gën a bon lu mu bokk rasulaay bàyyi ma bàyyi ma bokk mel ne benn deret mhm. yàlla dafa toppatoo loolu yàlla du nit yàlla du européen yàlla du asiatique yàlla du yonent yàlla du malaaka yàlla du du pulla fuuta yàlla yàlla la <laughs> yow li nga sentir mooy ki am xol yàlla mu xol yàlla li mu xam mooy li dogal li mu ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko mhm. et puis attention max sénégalais yi mhm. léegi nga ñu ne ku demul ku julli dem nga safar waa ñi ñi ñi ñi fi nekkoon te fu ñu de bu ñu dee fu ñu jëm aha doolaat loolu ñi fi nekkoon ñi fi nekkoon avant rasul ay ñëw. Hmm. doon dund ba dee. Hmm. avant yonte bi leen ñooñu anañu te ay missionnaire lañu ay prophète lañu woon. mais dafa nañ lu ëpp doole julli mooy lan bi leen yàlla bàyyi leen nañu baax. Hmm. bañ ne yàlla yàlla am naa ñu ne gëm nañu yàlla ba yàlla na bàyyi leen sàngara bàyyi nañ ko. yàlla na bàyyi leen sàcc ñu bàyyi ko bàyyi leen lu bon ñu bàyyi ko kon kay jàpp julli la. waaye tey ñun ñu fekkoon loo tey am ñu structuré ko am règlement intérieur tey respecté ñu ko ñoo gën a bon ñëpp kat. kon problème mooy moo tax sànq moo xam ma leen. julli bu baaxee doo def yii yëpp doo ko def. ab as gor daal war naa moytu loo xam ne bii ay maamaam xamuñu ko. ay sërëm yu baax xamuñu ko. ay am nam xamuñu ko tari xam ko. ay bàyyam xam ko ndey ma xam ko war ngaa ma nekk ak gor gor su gore. ndax lan tara dara gënta ñaaw ñu film ba pare nga dem ba màgget yore course ñu tegal la nañ xoolal doon nañ. jaroon wala say doom nekk kilifa ëllëg